Assalamun minallahi alaikum wa rahmatullahi alaikum wa barakatuhu alina wa alaikum mbokki jullit yi gannaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi nga xam ne aynu rahmati rabbaniya wal yaquqatil mutahaqiqa di sante kilifa yu baax yi ma jàkkaarloo di si jiital nag waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yàlla wax ne wala tarfaw aswaatakum fawqa sawti nabii waaye yàlla wax léegi ne innama yuridu llaha li yusuba ankum rijsa ahlal beyt wa yutahirakum tathira waaye yonent boobu waxaan ne qul la asalukum alayhi ajran ilal maarifil qurba kon maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare kenn ku nekk rek maa ngi lay wax la yonent bi waxoon ne anzilu naasi manaazilakum kenn ku nekk ñu ngi lay wàccee sa wàccuwaay di nuyu imaam bi nga xam ne mooy imaamu ndànk di imaam Buuna Kunta mu ngi nuy toog ma di la ziyaare di ziyaare mboolem ñi nga àndal bu ma neree tudd ñëpp dafay guddi te guddi na ba noppi waaye nag lafz bi tuddul leen waye tudd len leen si maanawiyan di la ziaré bu baax di ziaré suñu bay Omar mu ngi ni tok di gor gu baax magé lol waye dundam yépp nak mu def ko si yonent bi sallallahu alaihi wasallam bay Omar ñu ngi lay ziaré di ñaan yalla yalla yàlla ñoddu fan bi waye di ziaré suñu wajur bi ñu jakarlo di suñ sëriñ nga xamné li yépp bu amé rek mom la lii yëpp moo ñu ko xàllal defaral ñu ko dox ko wax ko saa su nekk di guddi di bëccëg mu ngi dox si tool yi maamam di yonti yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam waaye may ziyaare ki nga xam ne moom la yàlla jiital ci jotaay bii ndax suñu borom yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum waaye fa in tanazatum fi cheyin faraddu ila allah may nuyu ki nga xamne ne fi togal administration togal fi gouverneur way togal fi ki nga xamne ne moo di président de la république di préfet maa ngi lay nuyu bu baax di la ziaré bu baax di la ndokal bu baax di contane bu baax mbollem lo xamne ne nga ko ñun ci CDD bi rek taxawé ga lepp ñang fi indi tamit doxé nañ ko waxé nañ ko ba ñu leen santol motal nañ ko maa ngi lay gërëm bu baax. waaye di nuyu ki nga xam ne tamit mooy président conseil départemental di Moustapha Mbaye mu ngi ni toog di koo xam ne doomi daara la guddeem ak bëccëm yépp mu ngi koy dox ci lu mel nii su tabaxute ay étage lépp jox na ko jaamu yàlla yi def ko si jaamu yàlla yi ndax guddi gi ñuy taxawal tey di ba si tey bi yàgg na si dugal ñàqam moom ak ñi nga xam ne ñoom lay àndal waaye ñu ngi lay bàyyi yàlla mi nga xam ne ma wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yuxlifu wa xayru raziqin yàlla ne lu ngeen dépassé te man yàlla rek ma tax man yàlla ma lay kon wutal te man yàlla duma ma jeexal kon bàyyi nañ la waaye du nuyu ki nga xam ne moo fi toogal monsieur maire nga xam ne kuy dugg si néeg wala ngay dugg si bunt bi ñoom ñay bunt bi kon gan yi yëpp ganam la tey ji ñii ñëpp nga gis fii tey ji ganam lañ mu nuyu fi suñu yaay di Seyda maire Jama Cissé mu ngi ni toog ànd ak préfet taaral jotaay bi lool yàgg di dox lu mel nii di ci wax maire ñu lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bi waaye di nuyu mboole maire yi nga xam ne ànd nag ñoom waaye di nuyu tamit ki nga xam ne mooy adjoint commandant bu Sokone nga xam ne depuis démb mu ngi may oo di nemmeeku bés bi di wax si bés bi ngir li taaral bés bi kon nuyu naa la ak sa personnel bi yëpp lépp loo leen santoon def nañ ko maa ngi sant di leen gërëm bu baax waaye du nuyu mboolem adjoint yoo xam ne ànd na ñoom waaye du nuyu kilifa yëpp su ma nuyoo mbooleem koo xam ne nag tudduma la waaye xol bi tudd na waaye du nuyu famille Aynina Kunta mi nga xam ne ñoo góor gi ñoo bokk góor gi doon seen baay waaye waxee wuñ ko mooy ni ñu ko jëfee waaye du nuyu famille Maodo Gueye waye du nuyu fami Asin ak mbolem lo xamne tay di Aydara la wala muy Kunta wala muy tal wala fu mu munta nekk rek deug deug gor gi ne gis na leen ni ngeen taxawé si bëss bu doonte seen bëss la ndax nit mom la alal mo paré bayiko fi kon mu ngi len sante de gëreem bu baax waye du sante mbolem ko xamne ne soppa nga waye du sante mbolem ko xamne xarit nga waye du sante mbolem ko xamne ne nga si bëss ya xam muy wax ji rafet wala muy jëf ji rafet wala buy yene bu rafet yépp mu ngi len gëreem waaye ñu ngi sant tamit ki nga xam ne mooy suñ chef de quartier ñëw na léegi du suñu nijaay du suñu papa di Cheikh Mbaare Mbaare Diouf mu nga nee toog ñu ngi lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di gërëm yàlla nag di sant yàlla waaye di sant nag mboolem waa Kër Socé yi waaye di sant mboolem waa Thiès yi waaye di sant département bi waaye di sant région Fatick waaye di sant Sénégal yëpp waaye mun naa la sax maa ngi sant mboolem koo xam ne mu ngi nekk si àdduna bi jàpp na si bés ñu ngi leen sant di la gërëm. ñu ngi dalal tamit ki nga xamne moy imam Souleymane di Imam Dilor. mu ngi ñi yegg na legi ñu ngi lay ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mu melni ni dafa guddi duñu guddal dañuy jox ki nga xamne rek mo yere bati fami bi mu gërëm fami bi sant len koku lañ koy jox moy bàyyi si dégg sa wax bàyyi wo fen tuddu nga waye li am solo moy jëm jotay ji te sherif taral ko ñi yal yàlla subhanahu wa taala yàll na yàlla fiq fanam fiq fan njabor gi yep yàlla baye ko fi ñu yàgg ko fa fekk alhamdulilahi rabbil alamin sherif yàlla fa def dafa jabot ñuko sekk bari motax wax ci mom dina jafe waye li am solo rek moy nañu rafetal njort yi ndax suñu borom moytuloo nañu njort képp koo xam ne rek baaba tudd la te waroon laa tudd nga xam ni mi ngi ci xolam mi ngi ci xolu shérif doomu aadama moom manqué waaye ñu ngi tudd colonel Ba miinu ma ko waaye dégg naa shérif di ko gërëm muy kilifa jóge ba dakaar di xaritu Cheikh shérif boole kook moom ñëw na fi ànd ak ñëpp ay njabootam yëpp ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu képp koo xam ne jàpp na ci bis bi ba mu taaru ba mel nii ndax woote dafa metti waaye soo wootee ñu jàppale la ba bis ba mel nii ña la jàppale wax dëgg yàlla war a ngeen sant gërëm leen commencé ci gendarmerie sapeurs-pompiers waa SONES waa Senelec ñëpp baaba tudd na leen gërëm na leen ndax baaba suñu rakk la dañ koy sant bu baax nag ndax yàlla wolof jaay dafa wax ni ku tudd ku lakk mburu tudd dëkk taxawaayam rafet na trop ndax dëgg la moo nekk ci administration liggéey waaye wax dëgg yàlla taxaw muy taxaw bis bi ci turuy magam sëñ Hamdi ak sëriñ Mahamed di doomi góor gi nga xam ne wax dëgg yàlla sori nañu waaye suñu xel dal na ci ñoom ndax lii rek lañu bëggoon ci ñoom eh, góor gi li mu waral yépp def na ko ay dara lépp loo xam ne bii rek nit ku baax taxawal na ko shérif ma nga ca mbokk mu xewle jóg na ta tàngamlewul kenn kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant mbokkam yi jógee ba Kajoor Kajoor sori na waaye moom fa la cosaanoo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala min asheytaan rajim bismillahi الحمد لله رافع الدرجات لمن قفض جلاله وفاته بركات لمن تسبب لسكر إفداله وصلاة وسلام على المدد عليه فسحة رواقها وسدد به بلاغة نتاقها المبؤوس وآيات الباهرة وحجج المنزل عليه قرآن عربي غير زي وزن وعلى آله الهادين وأصحابه الذين سعدوا الدين وصرف وكرم mbokk julli ñi ginnaaw bañ sant yàlla julli ci rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu joxe kàddu nuyoo muy baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nuyu ñëpp ci suñu turu kàddu goo xam ne bii ne suñu bàyyi Aliou Cissé moo ko moom sant ñu ko ñu jéem koo jotale incha allah bi ci néew kàttan Cherif Bounama yaag sa mbooloo ak say xarit say dëkkandoo say am di jàmm suñu bàyyi Aliou Cissé nee na mu leen di ndokkeel ndax moom gàmm gi moo ko moom te it nag muy dëgg mu woo ma léegi ne ñàkkoon bañ ñëw rek ñu gis ko moo tax mu ñëw waaye amaat na fi mu toll nii yaramam mayewu ko di ñaan yàlla nag yàlla may ko wér mu ngi leen nuyu yàgg say mbokk di ñaanal ki mu ko bokkaloon muy yéen ñett muy bàyyi Maodo Gueye yal na yàlla xare ko ci aljana yi gën a kowe ci barke maamam sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag ku fi ñëw ci gàmm gi ku ne wallaay moom nga ñëwal ndax ginnaaw yàlla subhanahu wa taala bu chef des tentes moo ko ci moo ko ñemeloo ci ëtt maamam ba muy tànt muy suñu bàyyi Aliou Cissé yàlla na yàlla dolli ko wér mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp aima yi muy imaam yi borom xam-xam yi yëpp duñ bàyyi kenn suñu bàyyi Amadou Sakho baaba bu jëlee parole incha allah dina dugal autorité yi fa tabarakallahu loolu moom wàllam la di ndokkee ñëpp dund nuyu ñëpp di ko ñaana yàlla rek mooy istinbaat lu nekk mën naa mën naa yem waaye nag istinbaat istiqaamatu ñaar yi mooy li gën a jafe motax arab mu way def ne لكل على نحو الأولى حركات ولكن قل من الرجال ثبات استنباط مو جافي قي رك باخ كو نيك من نكو واي صاح تي مباخ غوك با يالا نيو اك دوغالام موي لي جافي غورغي عليو سني باي موغي نوي نييب دي زيار نييب اللهم صل على سيدنا محمد وسلم دانيل يوتي علي قمت من يشاء ومن يوتا علي قمت فقد غوتيا خيرا كثيرا asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki Sokone këru diine yi mbokk yi nga xam ne ñu ngi jógee luga ñi jógee Ndànk ñi jógee euh, Njaasaan ñu jógee Ndar gox bu nekk ci Sénégal ñu jóge fa pour teewee bésu ku tedd kii nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi ànd di ko sargal maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sama taxawaay fii ak samay kàddu mënoon na ñàkk ndax démb ci ëru wasifa la fi boroom dëkk bi Mamadou mu Alaaji Mamadou Moustapha Guèye ñëw waxtaan ak suñu baay góor gi Chérif Aydara suñu yaakaar tey ak ëllëg. saafonteeg moom waxtaan ak njaboot gi ak ñim fi fekk waaye man sama taxawaay ci mairie bi sax dafa ma xawal a loppañal tuuti ndax dama daan liggéey dakaar ba wàcc jël oto ñëw egsi fii Sokone ay 23 heures damay summi mbubb rek solaat beneen ñëw toog ci tànt bi ba bët te ba ma duggee ci mairie bi ba léegi loolu mënatuma ko lu may di ñëw ci ay cérémonie officielle ndax bu ma fi jógee maa ngi jëm ci beneen cérémonie te bu subaam jàmm itam bu ci yàlla àndee damay taxawaat ci yeneen man sama taxawaay fii mun na am ñaari kasket taxawal fi Mamadou safaa Guèye bi nga xam ne mooy maire commune bi waaye ma am cofeel ma nit sama taxawaayu bopp boo xam ne fii moom ku ma fi bëmëx ma jël di nuyu axlal baytu yépp di leen ziyaar mbiru euh, cër cëru àddina moo waral may ñëw fii di toog ci kaw waaye du sama cër di ñëw fii di fi jël kàddu yitam di sama cër waaye àddina moo doxee noonu diine ji rek moo fi nekk ak spirituel spirituel temporel ñu war a mën a gérer ñaar yëpp ma mujjee nuyoo nag préfet du li mu bokk ak samay doom bàyyi moo tax ma mujjeel ko déedéet waaye dama ko mujjeel parce que kilifa gu oyof la kilifa goo xam ne gu ñu nangoo jàppale la lii du suñu jëkk taxawaay ak moom déedéet fu këru diine wootee ñu nga fa taxaw ak moom muy nit ku oyof nit ku baax nit ku nangoo wàcce boppam nangoo laajte jege ñu lool nag te ñun itam jege boobu ñu sawar ci parce que administration ñun ñi nekk ci commune bi ñi ci bari defuñu ko donc pour nga doxal commune foog ngay jege ñi jàng administration pour laaj leen lan nga war a doxale ndax nga bañ a réer may nuyu Moustapha mbay mi nga xam ne doom la ci sama borom kër may bàjjanam itam waaye di ko jox wàccuwaayam cëram cëru président conseil départemental di béral nuyoo euh, njobootu góor gi Chérif Aïdara macha allah nit ñu yiw duñu ay xale ñoom ñëpp ay mag lañ ñu yiw ñu mën a joxe cër dañ lay jox cër ba yow ci sa bopp sax dangay xaw a am tuuti kersa muy am di muy baaba muy cheikh macha allah jigéen la góor di wax ni góor gi Chérif baax gi nga doon wax ci ñun ñii ñun ñii ànd ak préfet kenn ku nekk ak préfet ci boppam nga jiital ko ci tagg boobu ci sa biir saal ba loo ci wax ci lu baax ci ñun fekk nañ ko ci sag njaboot macha duñu def dara lu may ñaana la yow Pape Gorgui Chérif yàlla may la gudd fan gu ànd ak wér yàlla nag ñu yàgg a jiite yàlla bu kenn séddale sa gannaaw sa njaboot ci biir ñoom baatoo tiitaru la ñun dañ leen di tiitaroo di beral nuyoo nag sama kër maam Sakho Elimane ndax wax dëgg yàlla ciise gi itam jege na leen su ma taxawee fii dama leen war a beral nuyoo di beral nuyoo sama sœur Fatou Wilane njaay mi ngeen àndal bi ngeen di egsi ci délégation bi di beral nuyoo itam imaam Kunta bu naag bekkaay ibnu ma ca mopti yal na sa taxawaay yàgg wax ji nag du mën a gudd ndax gërëmante rek la sargalante te tey ñu war a ñëw di la ziar nag su amul royukaay di la ziar bu baax a baax di ñaan nga nangul ñu suñu ziar nangul ma sama bos nangul ma bu Moustapha Guèye mi nga xam ne ci genn wet moo ma fi yebal waaye di ko ñangul bépp doomu aadama bépp jullit boo xam ne mi ngi ci suufu tànt bi ñi bëgg a ñëw ak ñi mënul ñëw ak ñi yéene ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu billahi min rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوك جولي في تاو ني لين دي نيو دي جيتال سي نيو بي وغي بنا ما اي دارا دي nuyu préfet Moussa Aliba di suñu xarit nekk nit ku baax nekk nit ku am diina nekk nit ku yaatu waaye di nuyu madame la maire soxna Jama Cissé di ko yónnee suñu nuyoo ci monsieur le maire Moustapha waaye di nuyu kilifa diine yi nekk ci biir Sokone jiital ci suñu kilifa Serigne Omar Ngalla Deme di suñu waajur di ko nuyu di ko siyaare di nuyu sëriñ Abibu Ngom di nuyu famille Ngomeen yëpp waaye di nuyu kër sëriñ Touba gi fi nekk ak ñi nga xamante ne ñoo ko jiite di nuyu acteur politique yi nekk ci biir dëkk bi tamit di ci jiital monsieur le di suñu kilifa Abdou Latif Coulibaly di nuyu suñu rakk Pape Seydou aussi kilifa yi fi teew sëriñ collectivité locale yep ñoo fi ndax dañoo bokk rôle bu jouer té ñun suñu am te yow sa bos amul limite ndax ñun askan wi lañ fi nekkal parce que dañ dafa ñu fi teg bis bu ñu paré ci ñun man na am dootun fi nekk wala ñeneen nekk yow nak askan wi nga fi nekkal ba nga tege sa tank ba askan wi nga fi nekkal kon képp ku nga xamantene ne nekk nga fi di ili war lay jégé ndax yow da nga jégé askan wi sërif ñu ngi ñu ngi lay sant bu baax di sant sa njaboot ndax nag département funjuñ li nga leen warlul def nga ko ba mat sëkk amul benn gox bu nga xamante ne nekk na ci département bi biti département bi sax am na mais man ci tur département bi lay wax dara dana fa xew muy jàmm muy safaan ba ak lu mën a doon te boo demee doo gis sërif muy guddi muy bëccëg daje nañ ci ay dëj ay onze heures ci guddi ay minuit ci guddi heure bu nekk lépp lu nga xamante ne wàcc na ci askan wi yaa fay jiitu waaye nag ñu sant yàlla ba nga xamee ne yar nga ci sa njaboot yan na nga fi yàgg lool yan na nga fi yàgg lool mais suñ la gisu doon it tey mën nañoo am ci am di mën nañoo am ci baaba mii nga xamante ne formé nga leen ci mbaax formé leen cig yar jàngal leen ba ñu am xam-xam te loolu moo am solo asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu tamit nag suma xarit sama wëllëre sëñ Mansour njaay mii yàgg nañu lool lool lool ñoo ngi nuyu wa Ngomeen aussi ñu fi tew ñoy samay goro lañu ñom sama genn lañu fatu fi yépp ministre bi nak loxom mo japp rek daf ñu instruire né mom bu mom mo ñol bopam personnellement jël micro bi wax le cheikh Aïdara la gërëm la ndax yow Chérif dara ni ko waa conseil départemental sëñ Moustapha Mbaye mbay maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax Moustapha moom sama xarit la sama lépp la di ziare sa délégation bi nga ànd ak tamit maanaam maire yi fi nekk yëpp jiite ci nag maire yi Sokone nag ki ko fi représenté di aji si Cissé mii di sama jigéeni bopp macha allah.

te li gën a yéeme ci Chérif Aïdara mooy présence am tegu ko ci ki xewle am naag amul ak lii la sant ak fee la dëkk ak yoonam nekku ci day def na ko maam daan defee rek amut benn discrimination teew ngir jëmi rasulilaay nga xam ne moo boole joboote ñépp nag sëñ bi yàlla na fi yàlla yàggal bu baax a baax a baax sa njaboot nag moom macha allah mun naa ne tey jii ñoo ko bokk man sa njaboot day xaj ci man xaj sama kër xaj sama lépp ndax naam sax tey naru ma woon ñëw ndax su ma yaram dafa na su sutaat tuuti ma ne soxna si mën na ma ñëw waaye demal ma ngir yàlla mën na ma jarul ngir yàlla foofu kay maa la fa ëppale ma ne ko bon na boo demee nga demal ma nga ziareel ma am din ziareel ma baaba ziareel ma cheikh far yàlla dogal nag loolu la rafet rek yàlla daf koy rafetal lu muy metti metti ministre bi oote ne mukk jóg leen ngeen dem d'urgence que Chérif Aïdara parce que kooku mom xewam mom munu ma caa ñàkk a donc Chérif pour nga ñëw guddal wax ji sarak sa lepp mo yone ci yow di façade coloré bi ngeen seqoon yéen ñaar di ñaan nga ñaanal ko sa darajaay mam yalla rek ka man euh, yalla na yalla yokk xéewal yalla yàlla yokk yalla yàlla yokk sutura si sàmm njaboot gi machallah allah ñu ngi sant di gërëm ñëpp wasalaam Ginau bu santai sante yàlla julli si yonent bi sallallahu taala wa sallam ñoo ngi nuyu ñëpp di gërëb ñëpp di sant ñëpp ñoo ngi commencé sunu nuyu si serif gorgi dara mais nag jotaay bi balaa may dugg sama bir waxtaan maa ngi koy rafetlu bu baax a baax si fànnu buñ ko taxawee léegi parce que yàlla moo wax fu ngeen déggee nodd lu ngeen di mun di jàpp bàyyi leen ko ngeen toppoo yàlla ba pare ngeen continuer seen jotaay yaakaar naa loolu la def tey waxu yàlla ma ëpp waxu préfet téeméer yoon ak juróom fukk suñu waxuloon sax affaire bi doyon na ngir ñongi top lu mag ji lu ñu daf ñamal solo Serif si lolu ñong leen nuyu bu baaxa baax di jotale aussi nuyu préfet département bu funjun, mom mo woron tew mais dafa genn dekk bi mu yalla kofi. ko fi di la jotalee nuyu gouverneur région Fatick kooku sa xarit la woon moo doon moo doon ñëw fi daaw yàlla dogal ne moo nekk gouverneur région Fatick si seen ñaan su loolu weesoo ñi lay jotalee nuyu ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ñi lay jotalee aussi nuyu son excellence le président de la république Macky Sall parce que ñun ñooy délégué fii si département bu Foundiougne mangi di wax à chaque fois lu amul bop du dox lu bari bop du dox il faut mu am ben bop rek te bop bo yalla mo ko joxe te tey ku ko jox moy président Macky Sall ñong koy sak nga ñal ko bu baax mais si sunu délégation yakarna Issa Ba le premier secrétaire élu lim na ñi ma yépp yakarna nit lo munti def ci aduna nga nek julit nga gis sëtu yonent bi sallahu taala alayhi wasallam muy defal ay cérémonie te ngir mamam yakarna so soo fa lu baax rek nga fay jëlé leneen mënul ci fekk Serif ñu ngi sakku si yow ñaan bu wóor ñu ngi sakku si yow ñaan bu baax parce que xam nañ ci yow lu baax rek lañ xam ci yow dajé nañ ci yoon bari mais yoon bu ñu njëkk dajee mooy benn agent d'élevage bu gaañ woon ñi koy jébbal boromam jour boobu yaa ko jullee ñi daje foofu nga fa wax bu dëggu wax bu leer wax buy delluwaat nit ñi ci jaamu yàlla góor gi sërif ñoo ngi sakku si yow ñaan waxoon ci jamono kilifa diine nga joyal ca jigéen wala picc wala garab ñu ne danga ko saboote mm-hmm. ku am ni sallallahu alayhi wa sallam ni mu tolloog fi mu tolloog ni mu ganee àddina ak li mu def ak li mu def loo nit ñi nit di ko tagg di ko tagg ca jongama waaye taggin wa ak taaru taggin wa xasal mooy fab dara di ko melal ci dara ba egg ci la ngay doon melal mu melowoo mm-hmm. ak gàmmukat laa woon waaw waaw ngi kontaan naa lool ma bëggoon nit ñi su ëllëgee ñu jàngaat beneen jàngin arab suy woy xasal day seet jongoma joo xam ne jamono ji ma jamono teel ña ca gën a siiw ci taar ak jikko la mu wax ca wala tóontóori garab wala fas wu rafet di ca wax léegi nag ku ko defoon tey ñu ne diw de nga dem de nga jannaare yi ndax sëriñ bi lay wax di ko tollee jigéen ku ëmb jë ku ëmb sëriñ si ku leen nàmpal ku leen boot kon koo ne jigéen ñi bokkuti bokkatoo wasalaam rasulallah muhammad ya rasulallah ya di khairu khalqullah la ilaha illallah la ilaha rasulullah ndeysaan ana ko fi gën a bëgg Seydina Muhammad waasoo kon fi tasu leen mbaa geesal xol ñu màggal Muhammadu rasulullah samaam rasulullah yaa saydal kawnayni يا علم الحذاء يا بطر التم في الوجود على المدى يا خير الخلق لاي يا من فيده عمى البرايا يا منطحى والمرتضى يا بحر إيميلاي يا كنز العطاء يا درة الأكوان يا كوكبا فاخر بدير بسني سيدنا محمد سيد المرسلين سيدنا محمد سيد المجاهدين سيدنا محمد سيد الشاهدين سيدنا محمد سيد قاشعين سيدنا محمد سيد الطائعين سيدنا محمد سيد عابدين وهي الكرة góor jigéen ma ko ndaw jugee taxaw ñu màkkal Seydina Muhammad mbooloo mi màkkal leen mbooloo mi màkkal leen màkkal leen Rasulullah màkkal leen Rasulullah ana ku fi gën a bëgg Seydina Muhammad Rasulullah ay gaay jug leen taxaw ñu màkkal Rasulullah jug leen taxaw ñu màkkal Seydina Muhammad Rasulullah màkkal leen Rasulullah màkkal leen Rasulullah ما قال رسول الله ترى رسول الله ترى رسول الله ترى رسول الله ترى رسول الله ترى رسول الله انا صبي سيدنا محمد شريف تمام يا سيد السادات يخطب قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مسوقا لا يرم سواك وبحق جايك إنني لك محرم والله والله والله يعلم أنني أخواك أنا قبول سيدنا محمد أنت الذي لولاك ما قلق امرأ كلا ولا خل الوراء لولاك وأي الذي من نورك بدر حتى الشاع وسمس مذيقة من نور بعثا وأجبنا تخيل ما سيدنا محمد رسول الله ما قال رسول الله ما قال رسول الله ترى رسول الله ترى رسول الله بلخ الخرام قد برا قلبي وبت صايرا قلبي وبت صايرا من حب من الله يصيره شبيه في البشر شبيه في البشر شبيه في البشر فذاك أفضل العباد